Bienvenue sur la chaîne Mouhalim TV. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'informations. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim jërëjëf Cheikhna Ahmadul Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki euh, taalibe yi fi teew yëpp yéen mbokki taalibe yi fi daje yëpp maa ngi leen di nuyu kenn seen tur ak sant. maa ngi leen di nuyu kenn seen tur ak seen sant. di leen ci bis bu màgg bii. di leen ci bis bu màgg bii. tey fedd sama kër rek rek yéen. di jël nuyoo bi ak siyaar bi. di jël nuyoo bi ak siyaar bi. di ko teg ci loxo Sëñ Fallou Sylla. di ko teg ci loxo Sëñ Fallou Sylla. ay rakkam yëpp. moo ko ay rakkam yëpp. ak taalibeem yëpp. ak taalibe yëpp. ak bokk fi teew yëpp. ak bokk fi teew boo xamee ne. muy nuyoo boo xam ne. ci sunu xol lañ suñu xol doon ko tibbee. nuyoo boo xamee ne. di nuyoo boo xam ni. mbokk moo koy nuyu mbokkam. mbokkam moo koy nuyu mbokkam. waaye soppe moo koy nuyu soppeem. soppeem moo koy nuyu soppeem. te lu jiitu ñun ñëpp. lu jiitu ñun ñëpp. ndax liñ bokk kenn mënu ko séddoo. ndax liñ bokk kenn mënu ko séddoo. suñ suñ fadilu. sëñ Falilou. soxna Mariama Kunta. soxna Mariama Kunta. jën jëmm lañ rek. jën jëmm lañu. loxoom ndaje loxo càmmoñ la. loxoom ndaje rek bu càmmoñ la. Euh, bu bu soxna aw bu soomutoon. soxna Bousso bu amul woon suñu fàllu lu du am kon suñu fàllu du am soxna Mariama du am soxna Mariama du am jàpp na ko ñun ñi duñu am kon ñun ñi ne du am suñu mataar du am suñu mataar du am kon lu ñu boole kon lu ñu boole mënuñ ko mënuñ ko séddoo mën ñu ko séddoo yéen ñun ñooy yéen rek ñu ñooy yéen yéene ñun kon suñu fàllu ñu ngi lay sant waaj la ñaanal kon suñu fàllu ñu ngi lay sant la ñaanal ñaan sama borom yàlla yàlla dafa cat yàlla na sama borom dafa cat yàlla na yàlla gungeel boppam yàlla na yàlla dimbali boppam ndax dimbali yàlla rek am solo ndax dimbali yàlla moo am solo jàmbaar amul ku dimbalee am jàmbaar amul ku dimbalee am loolu Cheikh Abdou Khadre daan wax Baay di daan wax. di nuyu bokk fi teew yëpp nag. di nuyu bokk yi fi teew. bi ñëw maa ngi ànd suñu fàllu buso. di am suñu fàllu buso. bi ñëw maa ngi fi ànd suñu fàllu buso. bi ñëw maa ngi ànd suñu fàllu. mu buso. mu buso mu suñu Ousmane buso. mu suñu Ousmane buso. suñu Ousmane ci boppam. suñu Ousmane ci boppam. ak si ak seen ak seen masaar ñoom. ak seen seen masaar ñoom. bàyyi bàyyi suñu masaar bi si la. bàyyi suñu masaar si la. ñoo bokk ndey. ñoo bokk ndey. kon moom kër gi këram la. kon moom kër gi këram la. ndax si si ñoom seen seen seen wayjur. ndax ñoom seen wayjur. suñu mataa daa am ay cër suñu tuwaay yu bari. mataa daa am ci cër suñu tuwaay cër yu bari. génn ko ci ndey génn ko ci bàyyi. génn ko ci ndey génn ko ci bàyyi. ndax wayjuram. kon wayjuram. jarbaat suñu tuwaay Touba la. jarbaat sëñ Touba la. ndax yaay waajuram. ndax yaay waajuram. yaay yaay yaay waajuram. moog sëñ Touba bokk baay. moog sëñ Touba bokk baay. ndeyam. ndeyam doomi sëñ Touba la. doomi sëñ Touba la. kon gënu sëñ fenn. kon gënu sëñ Touba fenn. kon kon kon bu ma àndee mu ñëw fii. kon su ma àndee moom ñëw fii. war naa fi ànd mu ñëw fii. war naa fi ànd moom ñëw fii. Euh, di nuyu sëñ Abdou Assis Fall. di nuyu sëñ Assis Fall. ak njabootu sëñ Abdou Rahman gépp. ak sëñ njabootu sëñ Abdou Rahman bépp. njabootu soxna Tiraala gépp. soxna njabootu sëñ Soxna Tiraala gépp gépp gépp te di la ñaanal yàlla. te di la ñaanal yàlla. yàlla na yàlla guddal seen ay leer seen waajur ya. seen waajur ya. yàlla na yàlla yokk ci ñoom. yàlla na yàlla yokk ci ñoom. yokk ay ñoom ci leer. yokk ñoom ci leer. taas ci seen barke.

wëlëre yi ngay sàmmal. wëlëre wëlëre gi ñu sàmmal. wi gee ñu sàmmal. gi ci soxna Awa Boussa ci soxna Awa Boussa ñun ñëpp ñoo ko bokk de ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye ni ngeen ko toppatoo waaye ni ngeen ko toppatoo euh, sàmmee ko noonu sàmmee ko noonu ñun ñii ñoo ko waroon def ñun ñii ñoo ko waroon def defuñu defuñu ko te eh, defuñu ko yéen yéen ñu ko sàmmal yéen ñu ko sàmmal kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay ndax ñun kat ñoo war a taxaw taxawaay bi ngeen taxaw ndax ñoo ñoo war a taxaw ci taxawaay bi ngeen taxaw kon lépp ñu tudd soxna Awa Boussa lépp ñu tudd soxna Awa Boussa ñu féete woo ko ñu féete woo ko waaye ngeen féete ñu wet googu waaye ngeen féete ñu ci wet googu taxaw taxaw njaboot gi taxaw njaboot gi ba kenn saaw dem fenn daawul dem fenn. ñi ñi sori woon indi jege jege ngeen leen. jege ngeen leen. maanaam ñi sori woon. ñi sori woon jege ngeen leen. jege ngeen leen ñi demoon. ñi demoon dellusi ngeen leen kon li li mooy mooy firnde ji rek. kooku kooku mooy firnde ji. mooy sëñ Abdou Simi. mooy sëñ Abdou Simi ak woy juróom yi. ak woy juróom yi ni ngeen leen dajale sëñ Matar dajale leen. ni sëñ Matar dajale ngeen dajale leen. xaw lu ma lu ma sa def ci lu baax. xaw ma lu ma sa def ci lu baax. moom sëñ Matar moomu. moom sëñ Matar moomu. man sëñ Matar xaw lu ma sa def ci lu baax laa wax. moom sëñ Matar lu ma sa def ci lu baax. waaye loolu moom lu baax la moom. waaw moom daal loolu lu baax la. waaw kon daal ki ñu ko ñaan rek. kon ne ñu ngi koy ñaan bu baax. loolu yàlla ko baax mu fay. Eh, yàlla yàlla ko yàlla fay waaw maamam yàlla ko maamam fay rek yàlla ko maamam fay euh, ndax ndax ndax di ku bëgg mbokk la woon ndax euh, sëñ Matar ku bëgg mbokk la woon ku baax la woon ku baax la woon man nag mënuma seere euh, lool ba ma ko bëgg ko lool lool may may lool ñu sofi sofi so so sof yëfi boppam moom moom daal di ko def sof yëfi boppam moom joo xam ne jëf jëf joo xam ne na ko toujours wax na ko toujours yow yàggal sa baay ya eh, waxaat ma wax wax naa ko ne yàggal sa baay waaw ndax te loolu dëgg la ndax waaw ndax dëgg la man loolu dëgg la loolu wax dëgg la waaw dama dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg la la tunxoom moo la sut yaa ko sut nee na ku la taxaw yaa ko sut ku la tunxoom ku la tunxoom nga sut nga sut ko ku la nga sut ko te moo la ko te ñaan non te ba te moom te moom la Tuxum laa ko wax. te mu ko Tuxum waaw waaw waaw. kon kon yaa ko sut. kon yaa yaa ko sut. waaw koo koo sut nag yaa ko gën rek. koo sut nag yaa yaa ko gën. waaw kon naal bi mën a bàyyeel. Eh, kon naal bi mën a bàyyeel. ci penc mii. ci penc mii. yàlla na ko yàlla gisee loxo. yàlla na ko yàlla eggal say yaa ngi ko àndal ñëpp. ak ñu ko àndal ñëpp. taalib yëpp teewee ko. taalib yi. ñu jël nuyoo yi. ak cant yi yi. ak cant yi yi. te ko ci loxo sëñ góor Mbow sëñ góor Mbow. Eh, eh, te ko ci loxo sëñ góor Mbow nag. ñi nga xam ne moom mooy yi ko magi ko sant te di ko ñaanal yàlla te di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko fi yàggal yàlla ko fi yàlla yàggal moo moo yéen ñëpp rek ak ñun ñëpp nag suñu borom may euh, na fanu gudd ko suuf suuf ni ko attunu ko suuf ni attunu ko mu gaaral ko doj yi mu ko doj yi montagne yëpp montagne yëpp kenn attanu ko kenn attanu ko doomu aadama ne ko indi ma yanu ko doomu aadama ne ko indi ma yanu ko loole ndax dëjërle gi mu dëjërle ndax li mu li mu dëjërle li mu dëjërle te te rëy bopp te rëy bopp moo tax mu ñëwee gàddu kóllëre moo tax doomu aadama ñu ñëwee gàddu kóllëre kon kóllëre waaye kóllëre lu diis la waaye kóllëre lu diis la képp ko gàddu képp ko gàddu war ngaa am ne xam ne gàddu nga lu rëy rëy war ngaa xam ne gàddu nga lu rëy yéen ñii nag yéen ñii nag gàddu ngeen kóllëre yi da ngeen gàddu kóllëre fas jàpp ko jàpp ko taxawu ko taxawu ko suñu ko seet guy ci yéen suñu ko seet na guy ci yéen ndax li ngeen def kër gii de ndax li ngeen def kër gii Sëñ Fallu moom ngeen ko defal rek Sëñ Fallu ngeen ko defal ndax sama sama ma Sëñ Fallu mooy sëñ Fallou waaw ah, ma sëñ soxna Mariama mooy sëñ Fallou soxna Mariama mooy sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ soxna Mariama sëñ Fallou mooy soxna Mariama kon kër gi ab ab néeg la ci biir kër gi rek euh, kër gi kon mooy mooy lépp waaw ab néeg la ci biir kër sëñ Fallou ab néeg la ci kër sëñ Fallou waaw kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf suñu ñaan ci yéen daal ñaan ci yéen ma su suñu ñaan ci yéen suñu ñaan ci yéen am na fu mu tàmbalee am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye amul fu mu yem mais sant ñi nga xamee ne mais sant yéen ñi nga xamante ni euh, ay bokki taalibe euh, sëñ Kass ngeen woon ay bokki taalibe sëñ Fallou si li ngeen ngeen bokkoon daara ngeen bokkoon daara Cheikh Saliou Cheikh Saliou suñu mataar bëgg lu baax a tax suñu mataar bëgg lu baax a tax mu jël sëñ Fallou mii jël sol sëñ Fallou mi nga xam ne sëñ Tuubaa tool bi daa yaatu na sëñ sëñ Fallou sëñ Fallou tool bi daa yaatu mbaa sëñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tool bi daa yaatu te fu ne nga war faa béy sa sa sa sa sa wàll fu ne ku ne nga mën faa béy sa wàll ndax sëñ Sall bi moom ko joxoon de ndax sëñ Sall moom ko joxoon sëñ Sall bi moom ko joxoon sëñ Kalas bi sëñ Fallou sëñ Sall moom joxoon sëñ Kalas mi mu dafa tërbiyewu muy tërbiyewu am na ko fa jiitu woon am na ko fa jiitu woon kooku mooy kan kooku mooy kan Alaaji Baara alaaji baara bu suñu fàllu alaaji baara suñu fàllu moom la suñu fàllu moom la suñu bi njëkk a jox moom suñu bi njëkk a joxe moom la njëkk a jox bis alaaji nee alaaji nee damaa ànd si saal dem ndar ba ñëw. damaa ànd si saal dem ndar ba ñëw. ba fi ba fi si Ibrahima Mbacke bàyyi ko. ba fi si Ibrahima Mbacke bàyyi ko. la ko def féete dama féete ndar. mu ko dama féete ndar. di jiite di jiite wax bisi xeet yi. di di jiite. bisi xeet yi bisi xeet yi nga koy jiite. koor yi koor yi. koor yi koor yi. koor yi ak ak tabaski yi. ak tabaski yi. waaw moo moo wax si saal yi. moo wax si saal yi. naan Alioune Ba di ko yóbbu. Alioune Ba di ko yóbbu. di ko kondi otoom. di ko kondi wataam. ba bis nee na mu ñëw. ba bis nee na mu ñëw. mu ne ko mu ne ko dem ngeen ba ñëw. mu ne ko dem ngeen ba ñëw. mu ne ko ba defee ko morom. ba defee ko morom mun ko déedéet mun ko déedéet mun ko du sa morom de mun kooku du sa morom de daa ne ko day waa di ni ko dana dem ba Sëñ Tuubaa dana dem ba Sëñ Tuubaa dana dem ba Sëñ Tuubaa dana dem ba Sëñ Tuubaa yow nga yow yow ngay man mii yow ngay man mii waaye boobaa aha waa ah, su boobaa aha bu doon lu sëfër dong nag bu doon nag lu sëfër dong waaw ndax doomu Sëñ Tuubaa du morom kenn ndax doomu Sëñ Tuubaa du morom kenn sëñ bi gërëm nga ko sëñ bi gërëm na ko sëñ Saliou gërëm ko sëñ Saliou gërëm ko kon sëñ Matar bu jëlaatee loolee kon sëñ sëñ Matar bu jëlaatee loolee dugal fa sëñ Fallou mii dugal fa sëñ Fallou sëñ Fallou mii ngir xam ne sëñ Fallou sëñ Saliou sëñ Fallou eh, di xam ne sëñ Fallou sëñ Saliou néew. kenn lañ du ñaar kenn lañ du ñaar. Ah, ndax euh, ni mu jàppoon ndax ni mu jàppoon suñu fàllu. Ah, ko defoon. ak ni ko defoon. ñoom doomu suñu tubaab mel ñoom. ñoom doomu suñu mel. ku ne ku ñu ne ku ne ku ci

yàlla na dimbali. Ah, mais ñu teewlu ko ñaanal yàlla ñu teewlu ko ñaanal bari. ndax guddi gii kat. ndax guddi gii. ci la yàlla ñi dem ak ñi ñi fekkee ñi dul fekkee déwén. bis mmh. bii ci la yàlla sédd wërsëg yi ci la yàlla sédd wërsëg yi yàlla nañu ci yàlla suñu wàll bu mu doyal yàlla ci yàlla jox ba mu doyee bis bii bis bii wér yeeg wér yi wér yeeg wér yi ci la ko yàlla séddale ci la ko yàlla séddale yàlla nañu yàlla jox wér yàlla nañu yàlla jox wér bañ teew ko at yu bari bañ teew ko at yu bari am am tal amul tal bis bii bis bii ci lañ séddale jëf yëpp ci lañ séddale jëf yëpp kon yàlla na yàlla jëf suñu jëf yëpp kon yàlla defal suñu jëf yëpp muy jëf ju muy jëf ju muy jëf ju mu gërëm muy jëf ju mu gërëm li ñu wees ci rëcc rëcc li ñu wees ci rëcc rëcc yàlla na ko suñu borom jéggal yàlla na ko suñu borom jéggal jëm li ñu jëm li ñu jëm li ñu jëm yàlla na yàlla na gën a baax li ñu weesu yàlla na gën a baax li ñu weesu yàlla gën a yàlla gën a rafet yàlla gën a rafet yàlla na ko yàlla gën a nangu yàlla na ko yàlla gën a yàlla na yàlla kii jaamu ko yàlla na yàlla kii jaamu ko fuñ toll fuñ toll bañ ko bañ ko may benn yoon bañ ko may benn yoon yàlla na yàlla teg ci siraatum sax yàlla na yàlla teg siraatum tàkk teg suñu njaboot gépp teg suñu njaboot gépp te jubal ñu te jubal ñu jubal ñëpp rek jubal ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na def jàmm ci réew mi ñaayu yeeg bii jooy yi ñaayu ak bii jooy yi nag wax ñaaw yëpp wax ñaaw yëpp ñun buñ ci bokk ñun ñu ndax mun ci bokk nañ nañ doon taalibe Sëriñ Tuubaa rek nañ doon taalibe Sëriñ Tuubaa rek kon bu ñu ko defee dina baax bu ñu ko defee dina baax ñu ñaan ci bàkki guddi gi daal ñu ñaan ci bàkki guddi gi nga xam ne ñu bari xamuñ ko nga xam ne ñu bari xamuñu ko ci Seexul Xadim feeñ jamono ci euh, Seexul Xadim mi ci feeñ jamono kon mu Sëriñ Mataar am tawfeex jooju kon Sëriñ Mataar am tawfeex boobu ba man yaay wax ko ko yaay wax ko ko euh, ne ko sa maam ci la ñëwoon jamono ne ko sa maam ci la ñëwoon jamono kon màggal ko kon màggal ko kon ab cër la ci moom ab cër la ci moom boo xam ne moo ko da koo dencal rek boo xam da koo dencal ah, kon ñu ko ñu ko ñu ci daan ñu ci daan màggal ko néew néew li mu li mu daan def moom li mu daan def yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay fay ko njabootam fay ko njaboot gépp sëñ Fallou kon mu jóobu sa mu réer euh, kon sëñ Fallou sëñ bi ne mu jóobu sa mu réer kon yàlla nga àgg fa nga jëm rek yàlla nga àgg fa nga jëm waaw ah, ndaw moom ku jëm ci yàlla moom ndaw ku jëm ci yàlla ñaana ko mu àgg fa mu jëm rek ñaana ko mu àgg fa mu jëm pakk yeeg pakk yeeg yi dogee yi dabee yi dogee yi dabee yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal sabula suturaal la sabula suturaal la ah, defal la jàmm defal la jàmm njaboot gi topp sa ginnaaw njaboot gi topp sa ginnaaw nga xam yàlla rek topp sa ñu tax ñu topp yàlla rek tax ñu topp ci yow. yàlla moo topp ci yow. yàlla yàlla tax ñu topp ci yow. yàlla yàlla moo tax njaboot gi topp ci yow. yàlla bu ñu ci yow li nga xebatee. yàlla bu ci dara yow jéegul dara dara lu nga xebatee. yàlla nga yóbbu fa àgg fa jëm. yàlla nga yàlla nga àgg fa nga jëm. waaw ah, yàlla yàlla nga jofal rek. yàlla yàlla nga jofal rek. loolu laa doon ñaanal rek loolu laa doon ñaanal. maa ngi jégalu kàddu yi nag. maa ngi jégalu kàddu yi. dama ci mënta ñàkk a sànni rek. dama ci mënta ñàkk a sànni kàddu. sëñ Abdou Assis. sëñ Abdou Assis. maa ngi lay siyaare baax. maa ngi lay siyaare. yaa ngi njaboot sëñ boobu yëpp. yaa ngi njaboot sëñ bi. dañuy ñaanal sama borom guddal seen fan. di ñaan yàlla sama borom guddal seen fan. ngeen suuf seen bàyyi fan ngeen ngeen suuf seen baa aw fon. kon seetaan naa màggal. Eh, seetaan naa jàng xasida yi xasida yi ñu jàng. xasida yi ñu jàng ak kaam yi ñu bu leen yoree nit ñi boo leen dajalee bu leen dajalee wan leen yàlla rek wan leen yàlla rek waaye bu leen woon sa bopp bu leen woon sa bopp waaw bu sa baay kat bu waroon boppam képp sa baay woon boppam képp sa baay bu waroon boppam laaw ko kenn ko toppati ko kon kenn ko toppati kon bi mu demee kenn yëfi far na yàgg kon ba tey yëfi na kon nag boo wanee yàlla boo wanee yàlla wane sa njaboot kon mbir maa ngi noonu rek kon bis baa ngoog rek te ne sëñ kenn ku la nga ci am moo ngay waajee waaw ni li nga am li nga am sëñ bi kon bi na ngeen ko sant bu te gërëm ko te gërëm ko te téye ko baax a baax téye ko baax ah, te xam ne sëñ Tuubaa doon dara ci lu doon ci yow ku mu tuuti tuuti loola loola loola kenn mënu ko kenn du ko xeeb. ndax moo moo gën a kawe asamaan suuf. ndax moo gën a kawe asamaan suuf. te kenn mu ko fàggul sa bopp. te kenn mu ko fàgg kenn mu ko fàggul sa bopp. yàlla rek ko fàggul doomu aadama yàlla ko mën a fàggul doomu aadama. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yëf yaa ngi nii yoon waa ngi nii rek. yoon waa ngi nii ci waaw waaw nii nii suñ kas def rek. nii nii nii suñ fol def rek. Mm, jokk leen jokk ñun ñëpp ñoo war a jokk. ñun ñëpp ñoo war a jokk. ndax Sëñ Tuubaa moo moo boole suñu seen maam seen maam. ndax Sëñ Tuubaa moo boole seen maam suñu maam. kon ñoom ñii ko jokk ñoom ñii. kon ñi ci jokk. man ñoom ñii ko jokk. ñoom ñii ko jokk. ñun Sëñ Fallu ñoom ak rakkam ñii. ak Sëñ Fallu rakk yi. ak njaboot si Mataar gi. ak njaboot si Mataar gi. na yàlla fay yiw yàlla na yàlla fay yiw yéen itam yàlla na yàlla fay maa ngi siyaar si Moustapha baax di ko ñaanal yàlla may ko wér may ko wér may ko wér may ko fan wu gudd may ko fan wu gudd di sama xarit suñu fàllu eh, di sama xarit suñu fàllu moom sëñ Talla la moom Talla la ak mbokk yi ànd yëpp eh, ak mbokk yi nga ànd yëpp waaw ko lim da ngay juum rek maanaam ku lim da ngay juum rek eh, waaye ñu ne ñaan rek ñaan rek yéen ñii tim waaw ñun ñii tim nga xam ne yéen nekk cabaar sëñ bi ñoo nekk cabaar sëñ bi àndoon sëñ bi ànd ak sëñ bi ànd moom ngir yàlla rek dañuy ànd ak moom ngir yàlla mm, na nekk sëriñ na nekk sëriñ ngeen nekkee taalibe ñu nekk taalibe sëriñ taalibe sëriñ ak taalibe fa ñu mujj fa ñu mujj alhamdulilah rabbil rek alhamdulilah rabbil alamin bu nekkee ay buur na moom bu nekk ay dag ñu nekk dag eh, ay baat dong lañu yàlla ci yàlla musal ab sëriñ du nguur du nguur du du wëdeet boo xam dañ koy du lu ñu tiitaroo ab sëriñ nekk ci nekkul ci benn liste. ci nekk lix lix. nekkul ci lix. du du du du du lu ñuy tiitaroo. du lu ñuy tiitaroo. lu ñuy jaamu yàlla. lu ñuy jaamu yàlla aw ci yoon na. aw ci yoon nga aw ci nga raw ci rek. ñu aw ci yoon rek loolu moom la sëñ bi woote. loolu la sëñ bi woote. kon góorgóorlu leen baax yi. góorgóorlu leen baax a baax a baax. ñu ñaan subhaana wa taala. ñu ñaan subhaana wa taala. nga xam ne moo leen moo leen fi indi fii. nga xam ne moo ñu indi fii. yàlla ñu fi del si déwén. yàlla ñu fi del si déwén. te bu ñu fi del si. te bu ñu fi del si. kenn ku nekk. kenn ku nekk yëg yokk sa bopp. yokk sa bopp. ak yëg nga yëg nga yokk nga. waaw ci wér. ak wér jaamu yàlla gu nangu jaamu yàlla gu nangu waaw eh, ci ci xéwal yu bëree bëri ci xéwal yu rek jumaa ji moom na ko sama borom àggale rek na ko sama borom àggale rek waaye nag àggale ji àggale du wax kese moom du waxee kese ñun ñëpp dañ ci war a jëf ñun ñëpp dañ ci war a jëf te te takkaat suñu laxasaay te takkaat suñu laxasaay ah, moom ñu ko sonn kat te moom maanaam suñu gas mi sonn na euh, suñu gas mi sonn na suñu fol sonn na fu ne dem na fa fu ne dem na fa ngir lii ko bàyyam bàyyee ngir lii ko bàyyam bàyyee waaye nag da ko da ko bëgg mu am jom rek waaw daa bëgg mu am jom rek ndax xam na lu bàyyiwut lu mel nii ndax su bàyyiwul lu mel nii doo doo xalaat sax doo ko xalaat waaye bu la ko bàyyee bu la ko bàyyee dafa seen du laal suuf euh, tubaarkaal du laal suuf waaw kon lépp dana àgg incha allah lépp na àgg bu soxla ñaan nañ ko rek suñu tuwaa man ñaan ñaan ko bàkk sëñ Tuubaa ñaan ko ñu bàkk sëñ Tuubaa yàlla ñaan toog ba julli ko yàlla ñaan toog ba julli ko amiin taal ko bokk yëpp taal ko bokk yëpp bokk taal bi yëpp bokk taal bi yëpp jërëjëf jërëjëf ñu sant bu baax alhamdulilah loolu sëñ Njóogu wax na ko ñëpp maase wax rek waaw nan ñëpp wax ni sëñ eh, Abibu Mbàkke sëñ Abibu Mbàkke sëñ Fallu mi yàlla na ko fi yàlla na ko ñëpp bokk maase wax yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàlla musul ko ci cat te yàlla musul ko ci cat sàmm ko sàmm njabootam sàmm ko sàmm njabootam sëriñ bi suñ xol sedd na bu baax sëriñ bi suñ xol sedd na bu baax guddi gi nga ñëw fii. guddi gi nga ñëw fii. sa waajur wa Cheikh Mouhamadul Fadal. sa waajur wa Cheikh Mouhamadou Fadal. moo ko joxoon sunu waajur wa sëñ Maxtaar Sil. moo ko joxoon sunu waajur wa sëñ Maxtaar Sil. bëccëg gi yëpp. bëccëg gi yëpp. dañ doon jàng alxuraan. dañ doon jàng alxuraan. ak di saafoonte gan ñi. ak di saafoonte gan ñi. waaye waxtu wii nu toll. waaye waxtu wii nu toll. moo nu taxoon a jóg nag. moo nu taxoon a jóg. mooy guddi gi nisfu Saabaan. mooy guddi gi na Saabaan. Cheikh Mouhamadul Fadal. Cheikh moo waxoon sa jàmba. moo waxoon sa jàmba. sëñ Maxtaar Sylla. sëñ Maxtaar Sylla. ne ko saa su egseetee. ni saa su egseetee. donte kafe nga am. donte kafe nga am. na ko tàngal jox ña fa jege. na ko tàngal jox ña fa jege. ñu naan ko. ñu naan ko. nga wan leen ni leen tey la saamaam gane woon jamono. nga wan leen ni leen tey la saamaam gane woon jamono. kon buñ saafoonteeg nit ñi ba heure bii. kon buñ dee saafoonteeg nit ñi ba heure bii. guddi gi dugg. guddi gi dugg. nga ñëw xat mun ñu kaamil yi. nga ñëw xat mun ñu kaamil bii. man de xaw ma loo seqoon ak man. man de xaw ma loo seqoon ak seqoon ak man. waaye wàccoo nga ak man nag. waaye man wàccoo nga ak man ndax yaay sama xarit. ndax yaay sama xarit. di sama sëriñ. di sama sëriñ. di sama soppe. di sama soppe. di sama wéetal nag. di sama wéetal itam nag. te ba ma ko wax fenn. te ba ma ko wax fenn. koo xam ne kilifa gu ma gis. koo xam ne kilifa gu ma gis. Abib. dana ma dana Abib. loolu yaa ko may sa bopp. yow yaa ma ko may ci sa bopp. te booba wàcce gu woon ca daara léegi laay wax ne. léegi laay wax ne. lu ne defal nga ma ko. lu ne defal nga ma ko. waaye yàlla na la yàlla fay. wanda la yàlla na la yàlla fay. sunu xol sedd na bu baax. sama xol sedd na bu baax. sëñ Abo yónnee na fi. sëñ Abo yónnee na fi. kilifa dëkk bi yëpp yónnee nañ fi. kilifa ñëpp ñëw. ñu ci ëpp yónnee nañ fi. ñëpp yónnee nañ fi. ñenn ñi ñëwal seen bopp. ñenn ñi ñëwal seen bopp. sëb sët a ngi nii ngi nii toog. di sëñ Abdou Assis Fall. di sëñ Abdou Assis Fall. di doomi Sërif Abdourahmane Fall Tilala. ma bëgg nga ñaanalal ma ko bu baax. ma bëgg nga ñaanal ma ko bu baax. ku bëggu bokk la. ku bëggu la. ku la fonk la itam. ku la fonk la itam. ba démb rek nee naa ko sëñ bi bu mënoon a ñëw. ba démb naa ko sëñ bi bu mënoon a ñëw de. mooy ñëwal boppam mooy ñëwal boppam. waaye maa ko fi teewal nag. maanaam maa ko fi teewal. wax naa la ko démb. naa la ko démb. soxna Tilaliya nag. soxna Tilaliya nag. mii maamam. mii maamam. sëñ Touba da ko boole woon ak soxna Marema Kunta. sëñ Touba da ko boole woon Kunta. jox sëñ Fallou. jox ko jox soxna Awa Bousso. jox ko sëñ soxna Awa Bousso. moo tax lépp lu may defati. moo tax lépp lu may defati. dama leen ciy boole. dama leen ciy boole. kilifa ma ngi ñëw. kilifa ma ngi ñëw. sëñ Moustapha Fall. sëñ Moustapha Fall. di rakki Serif Abdourahmane Fall Tilala. di rakki Serif Abdourahmane Fall Tilala. ñu jàpp ci bis bi lañ. jàpp ci bis bi lañu. waaye Mbacke sant naa bu baax. waaye Mbacke sant naa bu baax. te bëgg nga ñaanalal ma leen. ma leen. jàmbaar lañ de. jàmbaar lan de. fu seen bàyyi tegoon ab tànkam. fu seen bàyyi tegoon ab tànkam. munu ma ne romb nañ ko ci seen kanam. munu ma ne romb nañ ko nag ci seen kanam. waaye xam naa ñu ngay waaxu waaxu tàng na. wante xam naa ñu ngi waaxu waaxu mu tàng. kon ñaanal ma leen bu baax a baax kon ñaanal ma leen bu baax. kon sëñ Habib sant nañ bu baax lii rek lañ ci a wax lii lañ ci bëggoon a wax. jërëjëf Mbacke Mbacke